السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي طالبي ما نجلين دي نيو دي لين زيارة أه، سين بكو غانا مسر مختار أه، أجو بي نك لتخ مدي قولف دما جين سخنك بيتي بريو وايكون ماي توك سي جتاي بي ماي mooy wax jii ma wax dafa mel ni dañ koo bëgg a jël yóbbu ko ci foo xam ne yóbbu ma ko mooy yóbbu ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba te doon ko liggéeyal bëgg a jël wax ji yóbbu ko ca ngir jublu ne na def leen di sobantal wala daf leen di doyalal te loolu la ma ca waxoon laa ci waxaat mosuma koo def te duma ko def te fas yéene wu ma koo defee ndax man mosumaa wax Serigne Touba te tudduma leen mënoo waxtaane Serigne Touba yi te boole woo ci te ñoom kenn ku ci nekk kër gu ne boo fa duggee xam ne wëllëre woowu la séq ak moom kon nag wax jii de kenn du ko yëkkati bëgg koo yóbbu tasaare ko ci àdduna bi jublu ne gànnaa ngay xas mag ñaandoonu Sëriñ Tuubaa wala ma leen di ŋàññe bëgg caa ubbi bunt loola du ca mbooleem seeti seex yi ak seex yi maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di balwaq te xam ne kenn ku ci nekk diwee sa maam na waaye ku ma leen gën a bëgg ñoom mag ñu amul te xamal ngeen ko seen bopp xamal ngeen seen pas-pas ak sama yitte ci ñoom kama jàmmaarool ji wax ñu bëgg faa jiggi loola te li ma naqari ba may taxaw kenn ku ci nekk ci yéen boo ko yëgoon xam ko mu naqari la kon man la ma doon xeex laay xeexaat mooy wax ji benn mag menn magum Serigne Touba mu àndoon ak Serigne Touba di ko liggéeyal sa njaboot ne ci yoon bi di liggéey moo moo wax ci jëmul ci yow maa ngi leen di jéggul nag mbooleem ku ko dégg te doon sëtu mag mu naqari soxol nga jàpp ne dama laa offensé wala wax ji dama ko jëme ci yow maa ngi lay balu ak maa ngi lay jéglu ngir jëmmi Serigne Touba waaye ngir jëmmi sa maam jooju nga xam ne tax na sa xol maa ngi lay jéglu di la balu ak seen mbokk gànnaam seen wasalaamaaleykum wa rahmatullah